leneen nag di Abdoulaye Seydou saw am na ay kàddu yoo xamante ne ni jëmale na ko ci discours yi nga xamante ne ni président Ousmane Sonko doon na ko amal avant ñu koy jàpp ci kaso bi ñu dem jéglu ko dellusiwaat. ay waay kenn lu ma fi dara léegi leer na kenn mënuloo ma fi dara ñu ko doon wax anañu mënuloo ma dara état bi toog rek di seetaan donc vous avez dit que l' état restera debout et l' waaye kenn mënuloo ma dara fii ñaar téeméeri Macky amuñ fit ba ana voilà ñi ci doon topp di fi def ay taalibe di bëgg di saaga ay kilifa di saaga ay say niir mais nañ nañ ñu ko continuer nañu ko continuer ñu gis ce pays là on le défendra parce que fii ci kafrin kenn mun kenn je parle Abdoulaye Wilane na ngi ni fii lañ doon dox ci mbirum ASC mu nekk ASC entente wër terrain ñuy rëpp Aïcha mi ngi noonu en tout cas ñu ngi ci ligne boobu te wàccuñu ko de vraiment Alaaji ban lecture ngay def euh, si euh, kàddu yi nga xam ne ni Abdoulaye Seydou Sow wax na ko jëmale ko ci moom Sonko mu ne nee da doon wax kenn mënul si moom dara et puis euh, téeméeri Macky Sall mënuñu ci moom dara explication yooyu noonu ban lecture nga si am. waaw wax moom xam nga dafa jàpp ni jeex na te tàmbaleegut mais moom jeexal na moom mbir mi. moo lay wan nit ku ne rek fii sa xam-xam toll fa ngay waxee boo nekkee yow ci mbir nga jàpp ni jeex na te nit ki moom tàmbaleegut kon yow yaa ngi ci njuumte maanaam moom fi toll nii moo lay wan ne la moom liñ xamoon yëpp ñoom def nañ ko jeex na maanaam jeex na moom dafa wax publiquement ne mbir yi jeex na te mbir yi tàmbaleegut fi toll nii ñoom lan lañ def demuñu di def recours. waaw ah, kon jeex na. ah mais recours yi ñoom eh, xam nañ déedéet déedéet moom dafa tënk mbir yi nee na anak ki doon wax jeex na Ousmane Sonko waxut kenn da ne lu dut yàlla mënut ci man dara lu am yàlla la. Mm-hmm. mu neex masant mu naqari ma waaye du kenn mbindeef bu mën ci man dara. loolu nag tolluwaay la mm. nit. boo te yegg fenn fi mënoo xam loolu léeg-léeg ma jigéen nit teg la loo xam da nga jàpp ni moo la ko teg fekk sunu borom la ko teg mais du nit ki nit ki nag faw moom mu nekk ci diggante bi mel ni moom la mais sunu borom a nangu nga jaar ci jaar jaar yooyu xam nga tey bu ñu lay nettali histoire sëñ Tuubaa ba muy dem ca géej ga ñaan gu nangu la waaye tubaab bi moom mu ngi jàpp ni. mi ngi koy teg ab nattu fekk ne dañ koy liggéeyal lii tamit est-ce que nekkul nit ñi dañuy liggéeyal dañuy liggéeyal Sonko te yëguñu ko xam nga liggéey li ngay li ngay jàppee liggéey sunu borom bu lay tàggatal ay nit dala koy defal façon boo xam ne façon bu extraordinaire la maanaam yow sax doo yëg ni nit kaa ngi lay liggéeyal nit ki du yëg ni mi ngi lay liggéeyal moo tax bu fayu gi ñëwee dalay bett hmm. lool parce que xam nga lu tax mm-hmm. daf lay jaarale ci ay mbir yoo xam ne parce que tey ku ñëwoon Ousmane Sonko jamono juñ tollu nii tembe di nga yegg fii nga yegg mm-hmm. du ko gëm mais ñoom gëmoon nañ ko gëm parce que seen objectif moom la wax tout à l'heure ni jeex na li ñu bëggoon mooy jàpp ko dugal ko ci kaso bi te ba léegi nii fu ñu nekk ba tey de dama ne la mm. ku waxoon Ousmane Sonko waxuma la ñii de waaw man ni Ousmane Sonko mënu na bañ kii kii déggoo ma man kii dama la de l'autre côté dama la wax ne la li mu xam rek la gis xam nga kii mooy kan mooy koo xam ni maanaam li mu gis ah. xamut lii lan la maanaam li mu jàppee naqar ak mitit mm. mën na doon bànneex bu rëy a rëy parce que depuis que ñu téye ko ba nëgëni tey lañ gën a sonn ñoom ci terrain bi depuis ñu téye Ousmane Sonko ba nëgëni kon kañ mbir mi hmm. nit ki nga téye ko këram ak nga bàyyi ko muy wëndeelu lépp a yem ci yow fi mu toll nii ñoom fi mu toll lépp a yem ci ñoom ñoom amuñu amagul dara loo xamante ni gagné nañ ko ñoom Ablaye Sow mi amul dara loo xamante ni pour le moment gagné nañ ko hmm. léegi nag moom dafa war a xool fan la yëf yi di mujj. man jàpp naa ne moom bu fekkonte ni bii nit la koo xam ne mu ngi def dafa war a tiit ci jamono ji nekk ni bañ a fes ci jamono ji parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bii tey mm. du ñu ci jamono ji fi yëf yi toll parce que peut am nañ vision bu gën a sori bi mu amee parce que lii nga xamante ni bii tey moom la jàppee mettit te ginnaaw jafe-jafe yombal la ciy topp yombal googu kañ lay ñëw jafe-jafe gi. mënta weesu lii ñu ne yombal gi kañ lay ñëw te bu ñëwee nan lay ñëwee ak ci banaanam lay ñëwee donc ñoom sës nañ ci jafe-jafe bañ demee ba tëj nit ki kaso boobu lañ sës maanaam yegg nañ ci seeni limite yaa ngi dégg léegi ki nga tëj mi ngi koy dund dignement comprendre nga mm-hmm. te ginnaaw jafe-jafe nag ku ne xam na ni yombal la ciy topp mm-hmm. waaw bu doon xamoon dara ci kii sax ma ñëwal la ci ci kii bi. mais moom mbirum diine xamoo ci lu bari. ah déet <laughs> ñëwal ñëwal gars yaa ngi lay seetaan non non non alaaji ñëwee ko si a comprendre man kese <laughs> mais en tout cas. <laughs> en mais en tout daal li am solo. ah mooy. ah yaa ngi euh, doon resté mooy mooy mooy na xam loolu quoi. Ah. na xam ni daal. Mhm. ginnaaw jafe-jafe. yombal moo ci topp yombal moo te gis nga mbir mu jeexagul. moom mi ngi doon wax sànq ci wàllu football. nawetaan moom xam na lu bari ci wàllu football. Ah. temps bi bu jeexagul. Ah. bul nekk kañ waaye moom dafa mel ni li mu xamoon ci football sax da koo réer. Mm. parce que dafa mel ni match boo xamee ne ñu ngi koy football. Mm. ba ñu dem mm. temps bi des cinq minutes. te maanaam temps bi des minutes. nga mëne deux bi à zéro hmm. ni ma la ko wax nga mëne deux un sax laa la bëgg a wax nga ne gañe naa match bi ah, commencé kii ah, ba léegi alaaji bu joueur yëpp yéegee attaquant yeeg milieu terrain baa ñëpp daw fattkan yi boobaa bal dootul dugg xëy na ah, loolu lañ dugg gis nañ fi gis nañ fi gis nañ fi fu bari fu bal dugg ah waaye bitu dernière minute am na de <laughs> en tout ngi noonu doy na waax ay ca ñu bàyyi la rek nga tàggatoo bëggoon naa nag nga kiiwal ma ci diine ji tuuti mais mel na ni da ngay daw res nag alaaji mais garaawul.